faral Marseille gisuma lu ko gën a metti ci àdduna mais gars yi Lamine Camara mii mën na football de gis ngeen tey match bi mu délivré sabali nag mais mbay man mbay Malick Mbay daf ma réeré woon mbir salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ci nekk seen tur ak sant tey Olympique de Marseille gars yi da doon football ak kookee di FC bu ñoom Lamine Camara sabali Malick Mbay ak ñoom seen mais nag match la boo xam ne nii ñëpp danoo jàpparoon ne mag mag Marseille bu ñoom Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye nga xam danoo titulaire tey non dañuy fi daawu Metz nag dañ leen a mën a woon un bi à zéro dugal benn ba yaakaar na ne deux bi à zéro lay doon def la break arbitre génnee xel dem vaar ne bii bi du bii nag Ismaïla dafa def faute ak ñoom seen arbitrage bi moom tey moom demewut noonu mu ngi noonee waaye gars yi li ma gën a metti mooy que Metz dafa am rouge teewut mu mën a Marseille deux buts à un ba match bi des tuuti Marseille soog égaliser mais rouge bi yàq na ci Marseille nu cee dugal trois bi mënu cee dugal deux bi Marseille mooy am dix occasion jàkkaarloo góol dugal ci benn non mais man Olympique de Marseille jamono ji ban ban ban ban buumee moo leen topp Marseille faral ko métti na de hee supporteru Marseille yërëm naa leen ñoom saa ñu espérer bu fa na ñoo ci nekk rek maanaam génnee xel ñoom ñu mujjee ñàkk match bi gis nañ jeu mais finition moo des dernier geste waaye kookee yi Paul Lopez Paul Lopez luy sa problème bu la indi jàppee di nga xam ne lépp dëgg la. pas le pèse looy mel ni roue de Mauritanie lu ñëw bàyyi nga bàyyi mu jàll ah tamit début buts simples des buts yoo xam ne nii non vraiment tu pouvais mieux faire quoi Pau Lopez mu ngi noonu Iliman Ndiaye ah, gis nañ envie détermination bëgg-bëgg mais finition rek moo des dernière vitesse maanaam terminer action yi kase kase kase moo des. nam ko doon réussir fële ci Sheffield United réussir gu ko Marseille Iliman Ismaïla Sarr macha allah ci match bi gis nañ ko accélération yi lii jeu dëgg-dëgg mu ngi ko indi di ci jàppale Marseille Yamal Dufort défensivement dafay jàppale Marseille bu baax a baax moom it am na benn occasion bu boo xam ne nii pouvait le marquer ah bu ko dugaloon wax ci jeex na tak tak tak waaw bal bi nga xam ne nag Aubameyang dañ ne dafa hors-jeu yee yaay noonu bal boobu bu Aubameyang bu ko laal woon Ismaïla xam naa ne day taal jaaxle match la boo xam ne nii Marseille mënoon naa gagné waaye it mett parewul woon pour ñàkk. nag vraiment ils ont fait un excellent match avec leurs supporters yi nga xam ne euh, dañoo présent woon foofu euh, Lamine Camara dugg deuxième mi-temps gérer jeu bi temporiser malgré seen rouge bi mais gis nañ ne qualité technique bi nekk ci gone gookee tax na ñoom du ñu perdre bal lu bëri fu ñu ko ko joxee dina fexe le tout téebal bi gagner du temps passe ko fam ko waree passe surtout dernière passe bi mu def ba match bu raay jeex intervalle boobu non mais c'était super Malick nag mel ni fit mel ni fel ci biir terrain bi fu a téye bal mu topp ko sonal ko waaye bu jëlee bal moom it gaaw na gaaw goo xam ne nii man daf ma réere woon mbir kookee di Malick Mbaye nga xam ne moo nekkoon foofee ca génération au foot mu ngi noonee waaye Sabali miy dugal bii bi nga xam ne moo euh, jàppale match mu ngi noonee waaye ñu dem ba ci biir affaire mujjee deux bi partout les sénégalais euh, quitté nañ ci match boobee kii am deux kee am deux loolu looy ñun ñëpp ñoo bokk gaal gi kenn du dem bàyyi moroom kon nag mu ngi noonee gars képp koo xam ne abonné ko suñu chaîne YouTube duñ def lu wax la nga dugg suñu bio TikTok nga bës ko YouTube mu yóbbu la directement chaîne YouTube bi nga abonné activé ko ci seetaan foofu vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à jaa jaajëf. والكنز والذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا Anima. dégg ngeen yàlla def ay chinois. ngeen mokkal alxuraan dégg ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax a baax. yaa tur macha allah. yàlla yàlla def ay chinois. def leen ay bëccëg jàng alquran